Indolent Corrections, Indolent Vibes, and then them see Sunday Beat life. tuddaa Souleymane. Souleymane waaw Souleymane foo jógee. waaw maa ngi London Kora. London Kora. time bi nga amee latest iPhone ñu ne la tojal sa iPhone bi wala nga mbéj sa jaaxa bi looy def. dama toj iPhone bi kay. da ngaa ah, bi moom xam nga ko tojee sax waaye su ma bi mun naa nekkaa moom iPhone 13 Pro Max. 13 Pro Max léegi naa ko toj. 12. dam koo toj. 64 koo dam koo yow lu tax lulu ya, lu la sa habis bi pak. ah xanaa rek mu buman bu man rek. wóor orna, bubasa. na bubasa lalu Philip wóor <laughs> Philip bro ya, bëgg a laajte loo xam ne no garaaw de. non because man mau lalu Philip Philippe nyuwah lalu Philip ah Philip kira dafa nekk loo xam ne kom, kom kom tahu da ngat, ngat train ngat amko. jadi so train itu tam da basic kom nga kom mën train. oke, alasan mana alasan laajte benn question. ah bro dama mën a laajte question. non question boobu dafa important. time bi nga yore iPhone li des iPhone bi ñu ne la mbéjal sa jaaxa bi wala nga toj iPhone bi booy def. ah. ñu ne la mbéjal sa jaaxa bi wala nga ah. toj sa li des iPhone bi looy def. damaa toj iPhone bi. da ngaa toj iPhone. yee lu tax. because moom a gënal iPhone. Ah. yee. yaa ko yee. yaa ngi yo artist nga. xam nga lu ma yo lo min yeah comme taxay la min taxay lu min yeah taxay meti geng la min meti geng lu min meti geng jaala leen miin xam nga lu ma miin. mais nga lu ma miin man lu ma min la xamul lu min yeah lo min lo lo min aw allah léegi rappal. xam nga lu ma miin xam ngeen ko sen boy Mr Vex. Ah. hey ha tuf ah. bismillah ma tambale saa yu ñu seen xol yi di bon ñun rek a fi ñemee cokkaas luñ tee gém di ko contrôle moo la soof jëlal sa xol bi teg ko ci gaas te boobu sa mën a la nañ ko coob tabaski bu passé ni yaa pi rappaleen tobaskee te sa xuur yi di ko basket nara te sa boobu di ko footballee momoroo yaa ngi ñaaw ni béy bëri wax ni béy bala maa dee ngeen ne kër saay fa amul cër ñun buñ juddoo si lopitaan bi leenu sixal weeni cëre kër am da nga ni yow tam jine rek a gën wax kan si yéen moo fi xamul metti zir biting loolin dixième ba ten yéen a ma gën a xam ko saat maa la wax advertise non dama comme xam nga ma miin maa la wax nga advertise non yow yow ban rapa nga ban kan comme waaw xam lu ma miin ñoom xam nañ seen bopp man duma dee dem wax yooyu noonu ñoom xam nañ seen bopp ñoom ban rapa nga tubaski comme rapa yëpp la rapa yëpp yaati rapa leen tubaski yow ñaata song nga record comme si woog la nekk Taakai entertainment yéen a ma a. Taakai entertainment soo yéen a nekk Taakai. yéen fa ngeen taal. comme foo leen taal. a ah, Taakai yow nga. Taakai ah, kay ah, foo leen taal a xam. Gambia kese aduna bi yëpp leen taal. aduna bi taal. yow ban maj nga doon use wala. ban maj dundee use maj dundee use leet xeer la noo jël. xeer. leer na musuloo gis loolu. boobu ancient time la de. musuloo gis loolu. boobu boobu boobu ñu ko doon def dee nañ. musuloo gis loolu. xeer ngeen ne ñu loolu la ñu si Gambia bi. boobu boobu dafa outdated de. si àdduna bi lañ koy indiwaat. dafa outdated de. money move gang meet gang. ah. yow léegi ban rap nga ñeme kan nga ñeme ci. rap bu taxaw rap batul ma rap la comme xoolal di la naan comme batul. yaa ngi wax de. débro loolu bu la na vex la naa ko teg si freestyle zone de mu ngi wax de vex la su ma ko tegee freestyle zone rapa taxaw vex la xoolal rapa wu taxaw comme ah. chat ba cat ah. yee chat ba chat boo fa ba boo fa ba génn boo fa ba génn yaa ko oote boo fa ba génn rab yaa ko oote naa ko teg de rabatul ma dem dun xam nga lu min dama ñaata rabatul nga win ñaata rabatul dan ma ne atee ñaaka xam nen booy bi lu mu xam nogaa nguñ la sax pasa nguñ a benn ndox comme nag yow xam nga métier gang fu mu dem moom mooy loolu. mooy sukuta yaa ngi fa de. ay oh, déglu ñoo la gën a ñoo la gën baat si rap bi de. déglu ben ma we ah ya ngi yaa daw de. bẹ́ẹ̀ ma wee. anyway freestyle zone dina fa ñew ñu vibes. nga amoon na iPhone 13 Pro Max wala ñu ne la tojal iPhone wala nga mbé ci jaaxa bi booy jël. ah wala mbé jaaxa bi. nga mbé jaaxa bi. waaw di noko mbé ah nu ma ko mbéjee nan nu ko kooku bëggee rek. ah waaw xam nga luy family tree. family tree family tree. No. waaw. foo leen dëkk. ñun family tree. family tree. family family tree moo nekk family tree. TV moo nekk nii sax. Gambia TV. Gambia Talents TV. Baik, booy Yang ngeen di pilih. seen pile family tree. oh, thirty family. Uh, thirty four family. waaw time latest iPhone. waaw ñu ne iPhone Walang nga mbëj sa dama ko bulit bam noonu laa koy def xëy fu ma toj ko waaw ma koy mbéj kay. loolu mooy famille. boobu mooy waaw léegi tri bi boobu mooy. tri bi nga wax noonu moom ma ci jaaxal nag. bu wala jaaxal. waaw boobu moo ma jaaxal. hello hello hello hello hello baby girl mm. o ma foo ka bay ndama ma jël sila mm. ana legi sama baby bi benzi la mam dal dafa enkilla mm. suma baby bi dara dara tu stas ñu ngi tok fi di har say nekk man yow lay helat ka ñu and rek wala bay luma bëgg sa xol la duga te yow la bëgg ka ñu and rek wala bay luma bëgg jël de gal man yu di only one ah, taxawal do dem de dem mm-hmm. bo yow time bi nga mi latest iPhone ñu ne la jël iPhone wala nga mbéj sa boy def man tey ah ba bés ma jaay rek. nga mbéj yee. ok la moo family tree. family tree. non boobu xam nga ko. family tree. non. Cepe Gambe ñu ngi maa ruslu jaaxay nañ ragal jaaxay nañ ragal booy affaire yaa ngi xiin nag ak doole eh, bi Sunday Beach bi tey nag xiin la àndal booy na xale yéen ngi kuula. Ah. kam fi am fit. fit comme naka. ku am fit ñëw tawe fi. ah booy nga ne moom fit comme naka. waaw fit comme naka laa ban façon wax. yow sa jaaxa time bii nii ah. non man aw ma jaaxa soo amoo jaaxa ñu ne la tojal sa latest iPhone bi wala nga mbéj sa jaaxa bi looy def. ma toj ma latest iPhone. wala nga wala ma mbéj bi. waaw. garab ma waaye. booy la mooy family tree. Alain <laughs> Deme am na kuy oote fii. Stingalingaling. That's somebody calling. Who is calling? jangan. naka sabit bi deh. naka sabit bi. mooy naka sabit bi woon. mooy naka bij bi. bilaay Mungkin over sound man. so naka bi nag. bi bilaay Mungkin ya yaaxa mungkin kau ngi ko waroon a. dafa bi mu yaaxa yow. yëpp la yaaxa. yëpp la yaaxa. mooy yéen noonu wax bi. bi kay. enjoy ngeen ak taw. taw bi moo happy Sunday bi. waaw happy Sunday bi. bi naka kan doh Dobi boy doh bi rafa ñu oh, ya hani de. so yang don vibes ah? Yang don enjoy sa boba so doh bi doh bi num ko yaaxee. booy ma yaaxamti nag boy ay ah, ya kan bi ma la gën kan bi man caméra laa yore te mu ngi taw waaye. maa yow ku ya kan bi nga jabar ya kan bi no man tax ma. kon kan bi man am ñaari jabar fu? No mantap. sama mag ma he. bij bi ah ngi nii rek si bij bi taw te nii waaw te kii am indi fii gan la xamu fii ma ne xaaral ma si bij bi taw bu mu doon taw fële si ron garab ba léegi da nga oh, let's go let's go let's go Range Vibe baaw ñu dem si kanam ñu seet ah ñeneen ñu nga xam ne lañ leen laaje right now maa ngi tooy am wet parce que dama doon mayel pour ah, moytu caméra bu mu tooy But lii moo fi nekk tey nag tey bij bi taw la def moo tax soo nee bij difference but anyways I'm gonna check on some interviews here. ñu ngi in Johnson yi Palmarima but taw bi moo taw right now nit yaa ngi ñibbi soo den bro na xam. yow jërëjëf. waaw ah, jërëjëf yaa ngi daw doo taxaw. nañ taxaw si Johnson bi fii. ne la ma télé bi ando be sa. so doo fa la tanga extrait mu toon la baag. yeah mu ne la mu toon ma baag sa. all right thank you. yeah. booy yow tam noo yow loo noo enjoy sa. non bi dafa neex rek mooy loolu. waaw dafa neex. waaw soo naka taw bi nag. ah taw baa ngi nii rek mooy loolu. mooy loolu. jaa naka sa bi yegal ñu laa ila. foo laa xool. Gambie dañoo gis caméra rek ñu ne la laa ila wala ñu ne la non bëgguma feeñ. I don't know why. But anyways, I'm not new down. Nine cross. Gambia is very, so very what what is one family tree? one family tree you know this. <laughs> what is one family tree? One family tree. Ah. Oh, one family tree. One family tree. You see one family tree? Okay. Africa. I was just trying French. Yeah, you can go French. Okay. Family Africa, Quand on dit one family, tree, cela veut dire euh, quand tu vois, tu prends le Gambia, Sénégal, Bamako, il faut qu'on reste comme aux euh, États-Unis d'Amérique, euh, l'Union européenne, pourquoi pas nous les Africains Parce que si on tient l'unité, on va évoluer. You see, unity, unity, me I want a peace in love uh, in Africa. Africa is one family, one mother, you know, is uh, very good. Uh. thank yeah. You. yeah, thank you bro. Let's vibe, vibe, vibe, vibe in around. One family tree, explain no ko friend My friend dafa graw. But anyways, let's go around. Boy, naka bit boy. Ngi big Naka bit. boy mi baram mi ko bati jige bro naka bit bi baram jaha naka ça va bro naka muy ni naka wi nice so naka bit bi wi bit bi moy ni rek fine so taw bi mu don taw no def wa taw bi xala di fen rek moy lolu da nga daw wala dang mel no daw ma de dawlo wa do ko sere da nga don jengo do ko don jengo all right nice Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Bro, naka bit bi boy. Bit bi. Bit bi yo banat. nga ñu ne Mbada. soo noo leen def ak noo taw bi tey. tey eh, la ñu Gambie bi artiste yi ñu nu mu fa nekkee. soo artiste nga. artiste ale bitanga na mbuba bila kana soko filale tere mula kala nyepo ko hamte jarunga bako nak sama sonte mala gena ba duga si gemi manangu sempansi meri di tachu ba yala mu tachu ma def lu bonite bu masi ote halati bonite mo masi konte lo fo gemi amun bote man sen kanam filay e monte luma yala may tema jele nit ku bonte man nga ma ale bu bonte man nga sorima moytuma bala may dama sa tanga nak ñi gambia bi dafa tuudi sa ba rafa nga ñeme jengu lola bu ga di kan gambia bi wala rape wala dama heb gay. da heb gay. wow, waaw da nga rapa gam dama heb, rapa yang ngi yang yang ñan ñan rapa ñoo ma seetaan rapa yang a ngi la seetaan rapa rapa ma rapa yow time bi kan nga kan nga kan nga foog ne mooy sa si rap game bi hey si rap game bi kenn du suma morom tey boy ñemewuloo ba la mooy ñemenu wa tur takay ku gën a kasih suma koñ ma so sa lagi laa gën mau ko mooy suma suma onda la ne kanele to takay nga jeka jengu takay takay season wala takay ñom SD ñom wala ñom ñene ñom Omaro ñom ñene na ñene sa boy so yow luy sa artist name am Saiji that's why they call me Saiji Saiji yeah na CID nga no duma CID because wala Saiji la wa ah, duma CID respect yeah Let's vibes. Maria wala tuda. So you for lahon si tawbi. Man si tawbi. Hmm. Amna fuma lahon. Tuti Da nga don dawal nak non mel dang don dawala dang don mel Dang dom dam dam mel rek. let's go, let's go, let's go, let's go. Affaire na gora tut. Taw bangi hin so very soon pak mapak. ha beta ñu rek. Beta la. So yo no don def dang dawala dang mel No, mile ma dama toy rek, dama si suhu rek. Dama si suhu. So pare wu on sangu si No, no, no, no. Wa sangu nga si gej. Wa legi kay toy na hep. Toy nga hep. Num demé fer nak, so sangu nga. dama ko fa enjoy waaw. ban sangu nga sangu bu taw bi wala bu ndox bi. taw bi sangu na ndox bi sangu na si biir géej. yëpp. soo da nga mayel wala da nga doon doon. dama si géej bi. soo naka cëfee ak si meloon foofu. aw ma gaay seen time dëgg la. ma laajee. Ah. laay ma dëggay moo la gaay seen yi. seen dëggay. yë dëggay wol bi loolu loolu mi bi nga xam ko. bot lan mooy family tree. family tree. non. boobu xaw ma ko waaye nag bi ma la taawal. Eh, Timor Leste ban dëkk la ne ban ban continent la nekk. Timor Leste xaw ma. waaw moom mu ngi mu ngi Asia. waaw maa la woon xaw ma. ah maa doon seet loo doon wax rek. non. ah, ah léegi laajte ma ma ma ansa. ma laajte la dëkk boo mun di wax si wool ma laajte la waaw. du ma la laajte dëkk de. loo may laajte. du ma la man moom kay ma la wax ma ne. naa la lu ma xam. saa yi du a spécialisé si dëkk bëgg ñu fii jox waxi dëkk ñun bëgguñu xam dekay ñun luñ la laajte lenen la non yema yemal lek yow legi sa jaha mu taxaw tay mbini non non non nga le léegi non di nga am jaha nak wa kayé ni kayé ni ana suma ma ñëwee suma su ma dama ñëwaat waaw ma am ñu xaalis waa kaye nii kaye nii waaw loolu la wa legi yow nga yoré mobile uh, latest mobile iphone bu ser waaw ñu la tojal iphone wala nga mbéj sa jaha loy def ma toj mobile bi wala ma mbéj ko dama go mbéj wa wa dem dem falaat su buggee mu dee foofu sax man taluma ma ñibbi na ngay daw man man <laughs> man Binta laa foo dëkk Fele Binta yow ah, taw bi nu doon taw boo doon def ah ñun de am na benn lii lu ñu gis korget fele foofu lañ taxaw lu palansoor dama faat. ñun suñu palansoor wala reen ko déglu leen. waaw moom sonde bij bi neexut. taw bi neexut ak nuñ ko plané nii. Ah, man man de tooy laa de. ay sa bës nga xam man xoolal damay siit. da siit <laughs> eh, waaw. Binda foo dëkk man Kóolóoli laa dëkk. Binda la mooy family tree. family tree. <laughs> gis nga family tree <laughs> ah non family tree. damaa jooy de. tiri gis nga tiri be de mu ngi amee doom yi bëri mooy famille tiri. mooy famille jërëjëf. parce que du ma science student du ma la expliquer na exactly tuberculosis lu mu ne. waaw tuberculosis is a disease. waaw which kind of disease. Uh, uh, ni ñu ko dee waxaatee sax it becomes just like fresh cold you be coughing uh, spitting out loolu laa si am some of the symptoms. waaw yow léegi the first British to came into Gambia. the first British. Mm-hmm. the first British to came into Gambia. Mm-hmm. the first scream or the first uh, British? British? British, I mean. British? Mm. Ya, yow xam nga lay laajte bu baax. Xam naa korka moo ko laajte léegi maa ko Portugal Portugal si ñoo fi ex ñoo fi njëkkee ñëw. waaw boobu laa leen Portugal si yaa fi njëkkee ñëw. waaw seen tur yi téyewu dem school. E, am jërëjëf. man Bintu laa tudd. Bintu time bi nga e yore li iPhone ñu ne la tojal iPhone wala nga mbëj sa par bi lay dégguma tojal latest iPhone boo yoree wala nga mbëj safar bi looy def man de comprendre ma li nga wax sénégalais la comprendre loo ma tojal sa latest portable iPhone portable mobile hmm? wala nga ñëw mbëj sa copain looy def ma toj sama iPhone wala ma ñëw mbëj sama copain sama copain laay mbëj da nga ko mbëj waaw nga ko mbëj si lex bi xanaa si lex bi eh, ñaata mbëj chocolate choco chocolate choco choco bukalano choco bukalano rabe sem de da mosem buatin taw la ci mo fi lay jëne burfut waaw sol yow la joge debi burfut be fi ñu modele nga ci modo ngena ci ya drive suma ongul sa ongul mo drive waaw muy fa lu tayo drive eh wa next year mo may drive burfut far mo nekka sen capital city bi xaw ma. amuloo. waaw booy te nag Sodé Beach bi nii marathon moo fi nekk baabu taw baa ngee taw ñëpp a ngee daw so if you don't have a shelter you won't have a place to be so this is what's happening here right now taw baa di taw so do mun a amaat interview nak affaire yi yaaxu na nañ dem bye bye another time bye bye Thank you.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 soofa yu nooy ñoo fa nekk TV baa ngi fa cabinet boo dugga lal yu nooy leen leen fa amal amal nañ leen fa AC ak li nga xam ne moom mooy faan toilette yu set wëcc amal nañ leen fa kitchen microwave fridge beneen bu baax dama ne teraanga day mut moo taxit Yavaatous Guest House amal leen extra kitchen lépp lu ngeen bëgg a togg mun ngeen ko toggee si gaz cooker bii nii kuy xalam di si jaayu nag barke bi yaay borom amal ne li nga xamante ne mooy ndox ak courant 24/7 bu leen tiit bu leen ragal bu leen xoof ndax amal ne lii di CCTV caméra seet si leen ñu si Farafenni gannaaw garage yi base bi Kawur highway very clean every day am na cleaning service réchaud bi amul Jaafatus Guest House. teraanga àdduna bët kon nag seet si Physiotherapy and Rehabilitation Clinic is the first of its kind in the Gambia. We have inpatient service and outpatient services. Penmore admits patients and they have intensive rehabilitations. That means treatment three times a day for five days from Mondays to Friday and on Fridays they go to their families to spend time with them to have family. Our patients come on regular appointments probably twice or three times in a week for treatment. We treat patients with arthritis, with back pain, stroke patients, fractures or after fracture operation, paralysis of all types, and we do treat both young and old patients. Denmark Physiotherapy gives quality physiotherapy treatments to Gambians because we are qualified physios from different parts of the world.